asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi followers of Eco TV International ñu leen di wax ne dalaati leen fii si another episode of waxtaani islam programme boo xam ne daleen ko indil fii di waxtaani suñ diinam islam di ñuy xalal di ñu xalaatal di ñu delloowaat suñu borom waa incha allah tey tamit am nañ nañ another important topic of discussion mu ñu yàlla mayee time bi rek dinañ waxtaan ak yéen si suñ topic of discussion incha allahu rabi aman yow bàyyi suma guest bi oustaz Souleymane Diallo mu nuyu yóbbante ak askan wi oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu. di ñëwaat fi nii beneen yoon ci Eco TV di amaat benn épisode bu am solo bu ñëwee defaat fii nii. di nuyu mbooloo mi di nuyu askan bi di nuyu réew mi yëpp dina di ñaanal jàmm yokkute tawfiq ak barke bu baax a baax a baax. ñu ñaan yàlla tolof tolof yi ak jafe-jafe àdduna bi yàlla na ko yàlla saafara bi daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ah, jërëjëf ya oustaz comme niñ ko miin di ko defee rek balaa ñoo dugg si biir programme bi di sant suñu boram di ko gërëm amoo ñu may fan bi may ñu kattan bi may ñu doole bi pour ñu ñoo toogaat fii si télé bi di mën a ak suñu bokki jullit yi di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur yi parce que dañuy am ah, important trop si suñu life bi sa yu nekk dañu dañu uh, put onto the right path ni ko oustaz di ko waxee rek dañu tette uh, dañu xelal bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax waajur bu góor bu dellu si boromam di ko ñaanal yalla xaare ko ajjana suuf bu sedd si moom te jéggal ko bàkkaaram ak képp jullit bu dellu si seen borom ma waajur bu jigéen bi di ko ñaanal di ko gërëm di ko sant saa yu nekk ya di ñaan yàlla yàlla may ko fan bu guddax may ko wér gu yaram yàlla may ko kàttan bu mu liggéey mu mun a uh, yóbbu njabooti yàlla may ko mujjun bu rafet a waajur yëpp su mu nekk si koy bu baax yàlla may leen fan bu gudda di sant suma jëkkër di ko gërëm bu baax a baax di kontaan si moom sorop saa yu nekk di sant yàlla si jëkkër bu ma may parce que moom may opportunité bi ma mun a ñëw toog si télé bi di mën a waxtaan ak suma mbokki jullit yi kon may ñaan yàlla mu may ko fan bu gudda may ko wér gu yaram yàlla sutura ko yàlla jàppale ko yàlla aar ko aar njaboot yi yàlla jàppale ko si liggéeyam njabooti yu nekk si ronam yàlla jàppale ko yóbbu njabooti mu yomba si moom incha allahu rabbi ah, di gërëm oustaz tamit saa yu nekk di kontaan si moom saa yi ma ko ooyee fii si Eco TV International oustaz is always ready to come to Eco International and deliver the important message that he has for us waaye di ña di ko ñaanal moom tamit saa yu nekk yàlla may ko fan bu gudda yàlla may ko wér gu yaram yàlla may ko kàttan bu moo defee liggéeyam bi yàlla may ko mujjën bu rafet yàlla may ko wér ak wér leen yàlla aar ko aar njabooti yàlla sutura incha allahu rabbi ah, tey suñ topic of discussion moo nekk peace peace ah, in ñu ne ko jàmma mu nekk loo xam ne dafa am solo torop in human life and in humanity léegi tey loolu lañ fas yéene pour waxtaanee ko ñu mën a xam lan la suñu diina wax si jaama ni ko gars di ko waxee loolu jaama jaama ko gën kon tey allah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 rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi moom mooy sang sàng yi di am mbégte ak kontante di amaat beneen mawdu bu nga xam ne mawdu bu am solo la mawdu bu nga xam ne tur la si sun ci turi borom bi bokk na ci turam bi assalaamu muy lan jàmm jàmm bi mu fas yéene waxtaanee tey suñ waxee jàmm mooy mbir bu nga xam ne dinañ ko firee mucc dinañ ko firee jàmm suñ ko firee mucc mooy lan ku nga xam ne war na doon gaañu palaas gaañu bi fa kooku mucc la waaye suñu waxee jàmm mooy nga dëkk ci palaas bu nga xam ne doo fa am lan tolof tolof ba pare tamit doo fa am naqar doo fa gis tamit lu la yaaxal suñ ko buggee yaatal si biir incha allah dinañ ko gën a yaatal si biir ndaxte ñu ngi door a commencé taarifu jàmm si lay nekk ba tey ndaxte masdar la bu nga xam ne boroom xam-xam yi am na ñu si bind am na ñu si wax am na ñu si wax ne huwa an najaatu minal amru aw laa yarxabu fiihi min shay'in mbir la bu nga xam ne maanaam nit ki daf see mucc si ay problème si ay musiba si ay nattu ak lu munta doon boo si muccee rek ñu ne am nga jàmm waaye boo si muccul rek safaan ba mooy ñëw kon lii lañ mun a wax ne mooy mucc waaw jërëjëf a ah, oustaz Ah, comme nu mu ko waxee jaama si aturi yàlla la bokk jaama dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop assi doomi aadama parce que koo xam ne yaa ngi si jaama sa mayin mu ngi free ko koo xam ne mu ngi am jaama rek mooy mën a am lu baax. Mm-hmm. parce que boo nekkoon si jaama yaa ngi am tolof tolof Euh, yaa ngi nekka si yoo xam ne naka su noonu amoo jàmma doo mun a am peace of mind mm. kon jàmma dafa nekka loo xam ne dafa am solo torop si doomi aadama te dem ko mm. soxla torop euh, dina la laccewaat oustaz details indi alquran ban suura moo waxtaane abaat jàmma maanaam suura yu waxtaane jàmm bari na mm-hmm. suuratul baqara ali imran suura yu bari waxtaanañ mbiri jàmm si qawlihi taala si wax yàlla ba kaw bi mu ne huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaam almuminu maaminu azizul jabaaru almutakabir ba aaya bu fu njeexee waaye si biir staati ne aaya bi assalaam moom fa wallahu alladi laa ilaha illa huwa malikul quddus salaamul mumin gis nga foofu noonu tamit salaamu ñëw na ak yeneen aay yu nga xam ne palaasi salaamu moo fa nekk ndaxte salaamu si boppam dafa yaatu jàmm bi fu mu commencé tey dinaa la ko wax baati salaamu bi tur la bu nga xam ne si turi yàlla yi foofu la bokk si njëlbeen ndaxte moom moo jël tur boobu noonu mooma la ko boppam am na ay tur yu bari waaye assalaamu bi si la bokk muy jàmm te nañ ko firee tamit mucc dinañ ko fuyee tamit xéewal ndaxte jàmm c'est le lépp nekk jàmm bi nag fu mu commencé depuis suñu borom bindee aadama alayhi bu mu ko bindee ba pare malaaka yi taxawee bool mu ne ko yow sama jaam bi jógal nga dem si ñële nga nuyu leen nga dégg ñoom lu mu lay wax bu mu waxee gay asalaamu aleykum malaka itam yokkal ko ci wa rahmatullahi wa barakatuh. gis nga fofu la bo boobu commencé mu wacc si ko aduna. legi ci bir jamm jooyu noonu moom lay nit ñi di jël diko ko ci si ko aduna bi di dundé mo ne nekk baati salamu bi si ndax ndaxte nuyo la bu nga xamné wala baat la bu nga xamné bu yowmal xiyamé mom la ñuy yuus kérok bu ñëpp démé ba taxaw baat boobu noonu la ñuy use asalaam boobu noonu mooy jàmm boobu la suñu borom bi ñu nuyu ñun mbooloo mi yëpp ñu dégg ko kenn ku nekk mu xam lan mooy asalaam yaatu na salaamu emul kese foofu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si boppam dafa toog benn bés mu am ay saxaaba yu ñëw nuyoo ñoom ñett. waaye kenn ku nekk nu nga nuyoo borom morom ki bokkut ndaxte nuyoo nuyoo boonu salaam bi si boppam. Mhm. ay daraja la des na nag yow si ban daraja nga koy asi. Mhm. ndaxte boo nuyoo rek am na daraja buy tege si kaw foo saxaaba bu njëkkaa ñëw dafa ñëw wax ne asalaamualeykum mhm. moom mu ay foofu noonu yonent bi mu ne ko kooku noonu am na ten daraja kenn ki ñëwaat ne asalaamualeykum wa rahmatullahi yow tamit ne kooku noonu am na tuuti daraja keneen ki ñëwoon ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ne kii am na ñett muy lan tàtti daraja kon gis nga baati salaam bi si boppam ak loo teg si kanam nu mu gën a yaatoo rek ñu gën laa yokkal la daraja xaasatan nag nga nuyoo ñu fay la ndaxte nuyoo bi mooy sunna bi delloo bi mooy farata bi kon fu nit toog wala koy romb wala ku nga xam ne mu ngi taxaw fekk ay nit fuñ toog yaakaar naa ne war na leen di mën a nuyu su ko defee tiyaaba bi ñoom yi ngeen séddu ko seen biir mhm. ndaxte salaamu si boppam dafa yaatu dégg am na si ñaan boo xam ne saa yu ñu jullee ba pare dañ ko dee ñaan allahumma anta salaam wa minka salaam fahiina ilayka ajmalu salaam tabaarakta rabbana wa ta'aalaa yaa zal jalaali wal ikraam gis nga baatu salaam boobu noonu si boppam si suñ borom la bàyyi ko dégg allahuma anta salaam yow yàlla yow yaay borom jàmm te si yow si lañuy delluwaat si jàmm te si sa jàmm boobu noonu boobu lañ bëgg nga jox na kon gis nga baati salaam bi si boppam nu mooy ñëwee ndaxte salaam lu bari la ëmb jàmm ñu bëri la ëmb xaasatan si nuyu waaye waxtaan bii du ko emal kese si nuyoo ndaxte am na nu ko continuer incha allahu taala dinañ si gën a ñëw bu baax a baax a baax. jërëjëf oustaz si leeraange boobu si li nga wax si salaam ak ah, xam ne si. alquran bi la nekk te mu jógee depuis si suñ borom la commencé mu wàcc si ñun kon defal nekk loo xam ne ah, dañ ko soxla torop ah, doomi aadama ah, dafa soxla jàmm koo xam ne amul jàmm amul dund bu rafet parce que bu amee jàmma ci ngay am comme ni ma ko waxaan ci ngay am peace of mind ku am jàmm kooku mooy mën a dox comfortable li gëstu wut left gëstu wut right gëstu wut si gannaaw parce que muy am peace of mind mu ngi dox di dem waaye koo xam ne amut peace of mind nekkut si jaamas fu mu nekk you feel threatened doo dee ñeme doo xam li ngay def sax mm. te li ngay def doo ko mën a def ah, in a comfort life kon jaama dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop si ah, doomi aadama dañu war a try ñuy énante jaama aw mhm. ku éne sa boppa jaama mhm. war ngaa éneele sa borom jaama loo wax si foofu foofu noonu yonent bi bu mu fa wax mhm. mu ne walladi nafsun bi yadi laa tadxulul jannata xataa taxaabu afala aqul lakum afala adullakum ala shay'in ida faaltumuhu tahaababtum afshu salaam baynakum yonent bi sallallahu alayhi wa dafa toog mi ne maa ngi géñ si lu nga xam ne moom si suma loxo bi moom saa yu nekk day géñ si boromam lay géñ mi ne du ngeen buggante astafurlah mi ne du ngeen doo leen gëm fekk buggante wu leen. waaw. doo leen gëm fekk buggante wu leen. kon jullit yëpp dañu war a doon benn suñ doonee benn buggante. waaw foofu noonu gëm bi dina gën a taxaw. dégg mi ne soo leen buggee nag gëm boobu noonu ak bëggante boobu noonu tamit mu gën a strong. Mhm. ñu ne ko lan la def. mi na leen da ngeen di jaawalanteeg nuyoo si seen biir moo nekk baatu assalaamu boobu noonu si boppam kon saa yu ne jullit bi dafa war a am xol bu nga xam ne xolu nuyoo la saa yu ne mu ngi koy dawal si gémmiñ ndaxte loolu noonu si la ñi di fonkante si la nit ñi di buggante si la nit ñi di respectante tey nga romb ay nit mm-hmm. ngay dox nuyoo loola mm-hmm. te yow ñoo la gën a xam. Mhm. wala sax sometimes nit ñi dañ dee def benn stratégie bu nga xam ne dañuy toog ñoom ñu leen di waxtaan ñuy wax wax nii. Mhm. yow nga ne déet ñi dégguma ñu seen waxtaan duma leen la nuyu ñoo la gën a bàyyi xel ñoo la gën a xam. Mhm. gis nga bés boo demee ba nuyuwuloo gaay ñoom duñu la boole si nit ñi. ndaxte duñ la faale dañuy wax ne kii nii. dafa ñàkk la ah dafa ñàkk itti sax yu rombee nit du nuyoo kenn. waaye fekk yaa ngi nuyoo. Mhm. dinañ la fonk dinañ la respect te duñ la manqué cër te exemple tey Mariama mu si benn koñ. Mhm. koñ bu nga xam ne foofu la ne saa yu rombee ñu respect saa yu nuyoo rek. Mhm. dinañ ko fay. ndaxte xam nañ la kii nii saa yu fi rombee daf ñuy nuyu dafa am orma. te di moo ngay nuyu gay di moo ñu lay gën a respect mm-hmm. te duñ la sonnal si dara duñ la xatal si dara ndaxte yónnente bee ñu ko sant nañ di nuyu wante ñu neen suñu biir bul xool kii mag la duma ko nuyu wala kii xale la dafa tuuti suma ron wala kii dama ko xay classe passé nañ fu ñu rombee ay waxi xay classe mm-hmm. xam nga kenn ñi xam mbiri xay classe buñ demee ba yow ma buñ àggee dinañ xam kan mo nek high class mhm. way high class fi ci aduna fi kenn ku nek lu nga am sa morom am mhm. ak nu muntu do lu nga am opulante bi ak nu bari bari bari lu nga am sa morom am ko mhm. ku am ferai auto ñaari sey ko la borom ki ñim ñep ci yem high class ba ngi yomul xiyam kon nañ di fexe nek yu nekk ñuy dugalante ñu ci sun biir léegi nuyoo jàmm googu noonu nak dina genn jàmm bi si boppam ay xaaj-xaaj la dinga am jàmm dëkk dinga am jàmmi poos dinga am jàmm yaram di nga am jàmmi dëkkandoor dinga am jàmm lu ne suñu waxee jàmmi poos moo nekk yow ku nga xam ne maanaam saa yu làmbee rek daj sa poos bi daal eh. nga sant si suñu borom kooku noonu saa yu nekk am na jàmm mm-hmm. waaye ku nga xam ne amu ko jàmm poos si boppam dafay génn si moom ndax te la amut ko te saa yu nekk daf ko war a dem uti ba su ko amutee rek maanaam keroog du du mun a comforté wu du fiil boppam bu baax ngir lan la war naa xëy joxe dépense. war naa xëy lijjanti doom yi ak euh, soxna si ak yeneen euh, ite yu nga xam ne mu ko war a dem toppatoo. Mm-hmm. léegi su ko nekkee ne xaalis boobu noonu nekkul si poosam kooku noonu keroog jàmmi poosam moom du ko neex. yaa ngi demee si jàmmi dëkkandoo mm-hmm. nit ki fu nga mënta mm-hmm. sa biir société naa ne war ngaa fexe nga nekk ku nga xam ne mooy nekk exemple. si mm-hmm. biir société boobu noonu. ndaxte bi si boppam dañ dee bàyyante xel ñoom neen yow mun ngaa dëkk si biir société bi yow lu moolum sa bopp doo tal doo lijjanti kenn. amuloo kenn ak jàmm bés boo amee xew kenn du la demal. kenn du la demal. di nga bugg a sax ku la rootal ndox sax. doo ko am doo ko am. di nga bugg xale boo yónni sa xale bi dafay bañ. ndaxte la xam na la kii jàmm moo jeex si moom. te ku jàmm jeex si moom nag nii dañu lay daw. boobaa problème mooy dugga nite xay lañ lay tuddee. Mhm. kon bala ñuy dem du la tuddee nite xay. fexeel doon nit ci jàmm ndaxte jàmm si la lépp xëj comme noo ko waxee si statique lu dul jàmm jàmm ko gën dégg ñu dem si jàmm réew réew yi jaxasoo nañ te exemple tey am ñaari réew yi nga xam ne ñu ngay xeex ñu ne ñu jël si yeneen réew yi ñu nga xam ne ñu si seen boor walla ñu si biti ñu dem dimbale leen pour la gars yi buñ nekk di daw pour ñu nous leen xeex bi stop jàmm am nit ñi yëpp nekkaat mhm. exemple comme ni ñuy jëlee suñu di la yóbbu peacekeeping. peacekeeping. gis nga comme façon yu demee noonu. Nous mm. dafa war a bari si fànn bu ak place bu moom mu mhm. jël ko ba comme ko biir jàmm gi noonu la war a dawe ak fu mu munta ne ak nit ki fu mu munta doon na jàmm na ànd ak jàmm na fexe daal lépp lu nga xam ne xay la problème la mu setul si ba mu set wecc gis nga koo xam ne am na jàmm mooy neex a jëflanteel mooy neex a àndal mooy neex a waxal loo ko wax dina la taaxeeru déglu la bu baax waaye ku nga xam ne nit ci problème la sooy wax mu yàq du la faale fu ñu munta daje si mbooloo lu mbooloo mi wax moo koy daj buñ la séenee ngaa ñëw sax ñu ne é eh, tey suñu problème bi tey suñu waxtaan bi tey du neex ñu ne àllu ah, xam ñu ne diw ngay ñëw nga gis ku jékki-jékki téye mobile tik ne nii fekk ko mi ngay dem problème la mooy bañ ndaxte xam na ne kii kat su ñëwee kat fii capital ex bi si boppam moom la bu ñuy dóoral correct bu ñu waroon am dina ko yàq yëpp kon nañ fexe jàmm ñu koy dund san weer koor bu ñuy jublu ci ni mu ñu nga xam sa yu nekk xolé dañuy tang te kenn teguñ ñuko luddul yalla suñu borom moñ ko sante rek ñu sey mer sa borom koy lu la sante kenn jarul mel jamm gi yom na torop mhm. oral bo bogon sey bi ko la sey bi nga dok lo fo na yom na de mhm. waaye or bobu non si bopam da ngay gis nak ñu nga xamne ne yàlla daf leen natoo ak xol bu tang duñ ko mun muñ sa yu nekk rek xalé bu leen rombee wala bu ñe noy ci kër gi buñu jógee tay nga di kon niñ fexé jamm ju ñëw oté kenn ku nekk muy and ak moom mu bind ko ci xolam bind ko ci dëndam mu taf ko ci jëbam mu nekk staamam dégguloo ñu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam xolam xoolam fuñ ko jox yuntib ku bari woon jamm ku daan tok doon waxtaan ak nit ñi ku daan digal nit ñi di téré té di daan tek nit ñi ci yoon ndaxte ku duggoon ci jàkka ji foofu noonu fekk yonent baa ngi toog ak saxaaba yi ba mu dem yàq jumaa ji ba pare saxaaba yi bu ñu demee boo boo xoolee dóor ko yonent bi mu ne bu leen ko def dara bàyyi leen ko dafa xamul moo tax su xamoon konante lii du ko def gars bi nga ko bàyyee ba pare yonent bi ñëw oo waxtaan ko mu ne fii nii place julleekaay la place jàmmookaay yàlla la fii kenn du fi def nangamati nangam bu mu paree ñaanal yonent bi ak moom moom si boppam mu bàyyi la ñu si gannaaw. xam nga foofu yonent bi dafa am lu nekk di jàngale. waaw teey ak dal dafa baax kon na jàmm tamit dafa baax dañ di fexe dundee jàmm ñu xam fan la jàmm jóge ak fu ñu jëmee jàmm. comme nga ah, te ni nga wax ni oustaz comme nuyoo wante si suñu biir. Mhm. te asalaam asalaamualeykum ci la bokk. Mhm. waaye léegi da ngaa jël si société bu ñu leef léegi pour nga romba nit sax mhm. nga nuyoo ko. dañ koy gis as something ah, ah, doo ko di mën a understand daal parce que léegi da ngaa fekk ay kilifa ay mbooloo nit ñi yaa ngi toog nga ñëw nga rombaleen doo nuyoo yow you don't even feel like uh, you don't even feel bad that man dama romba ay kilifa yoo xam ne dama rew war a nuyoo te nuyoo nekkul na ay kilifa wala ay xale wala ak nii képp koo xam ne fekk nga ko man yaakaar naa ne danga ko war a nuyoo waaye léegi nuyoo bi dafa mel ni it is decreasing in our society xaw ma ndax lu may seetlu xam nga yonent dafa am lu ñu sant mooy mhm. mu ne nga xam ne mu ngi toog mhm. kuy romb moo koy nuyu. waaw de. ku taxaw. Mhm. ku romb moo koy nuyu. Mhm. ku toog ci kaw seret. Mhm. mbaa nga egg si kaw waruwaay. yow yaay nuyu ñu nga xam ne ñu ngi toog walla ñi nga xam ne ñu ngay dem te yaa ngi ci waruwaay boo fekkee ay mboola ñu ngi toog yow mu nga xam ne yaa leen fekk. yaa leen war a nuyu waaye nekkul mbooloo bi ci boppam ñoom ñoo war a jóg nuyu la. te loolu lu koy cause mooy ñàkk itte ak ñàkk xalaat yow tey exemple tey boo amoon soo doom exemple rek soo amoon soo doom tey nga ñëw toog rek xëy suba teel mu xëy rek nuyu la nooy react suma doom bi lu ko jot lu xew xanaa la moo nekk si boppam bi man mu yaay ma xëy suba tey nuyu ma seetal lu nag nga génn na fekk ay mbooloo ñu toog mbooloo bi boo nuyoo kenn fayul la si loolu noonu ñoom mbooloo mi si boppam bàkkaat ñoom ñoo koy gàddu ndaxte nuyoo fay bi farata la mhm. nuyoo bi sunna la bàkkaat bi si boppam ñoom ñoo koy gàddu xanaa ñu bañ koo di nga dégguñ ko de ñu nekk si seen waxtaan bu am doole exemple booy ñi ngee kap bi ñi ngee waxtaan musique baa ngi dóor mhm. boobu noonu pour nga nuyoo dina xaw a jafe mhm. ndaxte boobu noonu soo nuyoo duñ la dégg waaye comme ko fekk nga mbooloo baa ngi toog noise bi bariwut xëy na kenn ku nekk mi ngi sëgg si fuunam yi biisi waaye boobu noonu boo leen nuyoo ngeen ne leen asalaamu aleykum yaakaar naa ne foofu noonu moom loolu yow yomb na torop ñëpp dinañ la dégg waaye nga romb mbooloo baa ngi toog nii looloo leen bés bu ñu la ñàkk a nuyu bul gis sa bopp ndaxte lan la lu nga leb la loolu leen ay fay kon nañ di fexe fu mbooloo mi toog ñu leen di nuyu mm-hmm. jàmm si la ñëpp xëj jàmm sene a ñëpp xëcc ndaxte yonent bi moo wax ne mi ne nit warut tongoo ak moroomi nitam wala mu stress ak moroomi nitam fo tri des war koo mat su rombee three days ñoom ñaari yoon ku si njëkkaa dee safaram foofu lañ la ati te ku si njëkkaa nuyoo moroomam kooku mucc na kon foofu noonu ñu xam ne tongoo baaxut saa yu nekk dañ ko dee wax saa yu nekk dañ ko dee dégg xale yi nañ bàyyi xel loolu bu baax mag yi tamit ñu koy sooraale ndaxte kat mbir mu nga xam ne la am na place ci Quran aaya yi bari nañ pour wax waxi nuyu soo yaa ngi gis si ñaan bu nekk nag salaam moom fa saa yu nekk paa yu suñ jullee dañuy ñaan yalla yalla def jamm ci rew mi yalla def sutura ñu door kenn ku nekk ñu door azkar bi ci boppam ñu pere mo nekk ya salam ya salam ya salam war xana ila ilaahi ci si ñu yóbbu ngir la jamm nit ñi mun koo seddu waye duñ pa duñ em fofu non dañ koy jallale ci bir keer tay ku bugg a am sa soxna jamm dañ koy won yoni jamm so ñoy ci keer gi yow jëkkër gi jabar ji dina la escorte waaye yow njëkk koo nuyu ndaxte yow ñoom nga fekk ñu toog comme ni yonente bi wax ku ñëw fekk yow yaa war a nuyu waaye nekkul na dañ la war a nuyu si gan sax booy dugg si biir kër dafa nuyu ba pare su nuyu ba pare nit ñu ñoo door ko sagar na nuyu ko di ko jàmm sante ak moom jàmm bu ñu am si biti mm-hmm. borom kër gi ak ku mënta doon jàmm gu nga am si biti fexeel jàmm gu nga ko ay si sa biir kër ndaxte am na ñoo xam ne dañ am jàmm si biti ba pare mhm. biir kër gi amuñ fa jàmm te biir kër gi mhm. foofu lañ moom mhm. biti gi moom nag doo fanaan si benn sa kër nga moom kon kër gi nga moom ak problème bi lu mu tàng tàng tàng tàng fexeel yow yaay jiitu mbaa dañ lay jiite fexeel problème bul ko koos ndaxte problème su ñëwee du am si bokk si si ko woo jiitu luy olof di war a xay du am si bokk borom soko talé da fay lakalé ñep ñep lay lakalé kon na problème yu may am ci biti. nañ ko régler ci biti. lu ñuy am ci biir kër gi nañ ko régler ci biir kër gi ndax jamm am bo déggé né tay kër ñoom Ousmane Baye neex jamm fa ne. ñëpp xëy suñu xey wacc dem liggéey ñow rek ñoom daam ci kër ñoom Ousmane Mbaye toog foofu noonu. Mhm. di waxtaan di naan ataay di xaxataay tam te di nelaw sax daay jot sax kenn ku nekk toog réew ba ngir lan jamm ju am ci biir kër ñoom Ousmane waaye fu nekké né tay mon suma kër day jamm nekkul fa tey kan mo fañu do am gan nit du la seeti téléphone pour nga am ko problème la <laughs> bobu na nga commencé na di jaxlé mm-hmm. yeen do la ñew suma kër rek do la nangama ci nangam problème ba fa nekk sol fuñ ko kër ga amul jamm des bu kër bi amé jamm mm-hmm. ay sàpp la sàpp ma ala ngay tek every ngir nag nit ñi dañuy ñew foofu noonu tok foofu waxtaan di ataaya xale xalé ñëw fofu non toog foofu noonu kër ndaxte jamu fu am foofu lay ñëpp di dem fu jamu nek foofu lay ñëpp di dem bes bu jamu demee ba toxalu rek ni ñu toxalu and ak mom kon nañ di fexé ñuy and ak mom sa yu ne luy iñaan luy soxor luy bon ak xéti bon bu nga xamné daf lay génnaloo ci jàmm nañ fexé bàyyi ko ndaxte buñu demee ba yomal xiyam yalla bu bu ñuy wax duggal dugaleen seen kër aljana yi mhm. udxulu daara lam ñuy wax dugaleen ci seen kër jamm yi kër jamm yi moy fan aljana wa dakhilna naa jannaka daaraka daara salam te nga dugal ñu ci seen eh, kër gu nga xamne moy kër jamm gi kër jamm gi fan la aljana way kër safan bi ñepp xam nañ ko yalla duñu wax wax duggal dugaleen fi mhm. te yalla bari na yermande ba nga xamne mën na taxawal taxawal jullit yeb ba ñepp taxaw mu ne kenn ku nekk lii nga doon def si àdduna si ñaawteef si baax si bon si yii nii yépp yàlla xool ni ba mu neex jël ñu dugal na si àjjana te du ko wàññi dara bu ñu doon jël tamit du ñu dugal safara te tamit du ko wàññi dara waaye saa yu ne ñuy fexe di góor góorgóorlu di ñaan suñu borom mu dugal ñu daara salaam fii ni àdduna bi fii nattu lam ñu fi wàcce daf ñuy tes ndaxte moo wax ne xooluma si seen yére yi xooluma si seen jëmmi xooluma si seen alal xooluma si seen askan xooluma si ban xeet ngeen bokk mi ne xam nga kan laa xool bolom xool bu rafet ak ku ma gën a gom ak ku ma gën a ragal kooku lay xool walakin yanduru ila xulubikum su suñ xoli lan ka di xool anu suñ xoli lan lam ñuy méj ak ñu mun a def loolu lay borom bi di xool kon buñ bëggé dugg ci dara salam ñun tamit nañ fexé salam buñ am fini ni ko kaw àdduna bi fii ni bu ñu yàlla di jël salam boobu noonu di ko doxee ndaxte yonente bi loolu ñu wax ndax suma ma leen digtalee dara dina leen njëriñ ñu ne ko la la mi ne jël leen jàmm ngeen tasaaru ko seen biir ndaxte am na ñoo xam ne ñu ne ñoom ñooy doxkati jàmm yi waaye ndeke ñoom seen doxam jàmm yépp xaalis la tey dañu am problème tey ñu jël ay nit yónni leen fayal leen paas jox leen ticket yàlla bu mu nekk place bu nga xam ne place bu sori exemple dañuy jël pileen ñu daggal leen ticket dem na ngeen defal ñu peacekeeping nangamati nanga wax leen ñu ko problème yi solve ñoom ñu àgg lijjanti seen bopp bàyyi nit ñi si gannaaw ñoom ñu ne la ñu ngee dox jàmm fekk ñoom seen bopp la ñuy doxal jàmm ñu leen taxaw yónni pour ñu doxal leen jàmm ñu bàyyi ñun si gannaaw problème bi di gën a yokk kañ la jàmm di sax kañ lañ koy lijjanti suñu biir suñu boroom suñu laajee nag lu ñuy lay foofu noonu lay dellu gannaaw amul fa lay yëpp ca kanam la jëm ndaxte boo was tireet la war a doon ndaxte keroog làmmiñ bi si boppam dañ koy tëj làmmiñ fu ñu ko bàyyee lay dina am moto tax borom bi ne làmmiñ bi dinañ ko tëj bakkan nopp yi tànk yeeg loxo yi ñoom seen ñooy wax kon nag bala ñuy dem kaste suñu làmmiñ yi ba pare di di laaj loxo yi te loxo yi boo boo laaj dina wax maa jëloon nangam. Mhm. maa bindoon nangam. Ah. bët bi na ko maa na ko maa woon nopp yi na ko maa ko déggoon. na ko ah maa ah, tànk yi ne ko maa ko doxoon biir bi mu ne si man la desoon. Mhm. lay boobu noonu yëpp yow suñ paree yow foo jëm enn sa loxo yi naan woy fu ma jëm balaa nag woy fu ma jëm di la fekk mhm. kon nañ fexe jàmm ji nga xam ne moo war a daw si suñ biir ñu doxale ko mhm. problème baa ngi bëri si biir dëkk bi kenn xamut lu xew waaye buñ toogee waxtaan oo kilifa yi nga xam ne borom xam-xam lañ ñi nga xam ne xam nañ am nañ hikma nga xam ne boobu place boobu noonu moom fu ñu leen fa jox rek dinañ ko mën a rek ne lijjanti ñooñu noonu ñu doxal ñu problème si réew mi waaye nekk ñu nga xam ne dañuy ñëw di yokk problème tey ku yaakaaree am benn 2000 dem jënde ko saaku pour njabootam dund yow ngay wàññi kooku noonu salaire mbaa nga koy soxare jàmmoom dina ko di nga di nga jeexal jàmmoom si moom. yow boos bi yow mu jiitu ci kaw fexeel sa staff bi ñu nekk ci gannaaw mm-hmm. ñu am jàmm ndaxte da war a la neex deret ba pare mun a waxtaan nit ñi ñu bëri seen liggéey yàqu na mm-hmm. amatuñ liggéey ngir la jàmm juñ amul ak seen boos jàmm juñ amul ak seen liggéeykat yi motax ñu bari bëri ko dem seeti waat leneen te xëy na su lu nekkoon lool mo gënal si ñom wa ñu bari noonu lay doxee ngir lan mayu len jam ak demante sëriñ bi xaatimante bi safar yi ñi jël di tour ci office yeeg ak place kay yépp yow pour nga xëc am sa place wu nekk si tangi ya ngi xañ nit ki tarangam ak jàmmam fu mu mm-hmm. te nit ñepp xam nañ ne suñu bakken bi kat fu jàmm mënut ta nekk foofu lay ne bu safaan ba ñu ñëw rek mu rocc ku bàyyi kon nag suñ buggee ñuy régler suñu pati yi neex yi ak nu mun tamit nañ fexe jàmm li ñu am ñun ñëpp ñu doxal ko si suñu biir ndaxte ñëpp si jàmm lañ xëcc ku fi xuloo sa yaay fexeel ju moom mm-hmm. ngeen nekk si jàmm ku fi ama problème sa jëkkër mbaa sa jabar fexe leen nekk si jàmm waaye am fii problème kat ñu la koy régler ngay jaay jiko boos di jaay maa am sañ-sañ mhm. bés bu demee ba paase ba rëccu te fekk la foofu noonu mhm. di nga bëgg mu delluwaat comme nu neexee woon ñeneen la jot kon nañ fexe jàmm si mhm. lañ xëcc jàmm lañ fi am jàmm yàlla lañ fi am loolu rek lañ fi am lu dul leneen yàlla xanaa lu ñuy xewalal rek te loolu tuuti la si moom moom moo amee lépp démb maa ngi ko doon xale yi ma ne leen fexe leen góorgóorlu di ñaanal seen papa di ñaanal seen yaay di ñaanal koñ bi di ñaanal waa dëkk bi ndax ñëpp nekk si jàmm ndaxte jàmm fu mu xas ba jeex rek xay moo fay dugg te xay bu duggee rek ñëpp lay maasal kon nag ni jël jàmm dund ko ànd ak moom ñu taf ko su suñ ji yële mm-hmm. kenn ku ne. mu koy jaawalante ak morom gi comme ni ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sante nañ di fexe jàmm di daw suñu biir ak fu ñu mënta doon moo xam ay nit nga amee wala ay rab nga amee ndaxte rab sax moom bu demee ba moo xam ne place bi awoon moo fi jàmm dafay génn dafay génn kay dafay dem bàyyi la fa du fa toog comme que fii saa yu ma fi nekkee dinañ ma dóor dinañ ma def nangam ti nangam dafay yoreet mes te mbay ngay toog sama nak bi dem nak sama xar bi sama fas bi dem nak la jàmm amul fa ngir lan yow loko war na jox joxulo ndax ndaxte war na lek ba sour nan ba mandi te place bu bax nga xagn ko lol yeb fas bi wala xar bi du nan dara du ko am boba yalla dalay natou rek ben mu rek ko mbaa mu rëcc ko mbaa ñu sàcc ko rek kon nañ fexee bi muy dund ak fu mënta doon ñu waxi problème ak lépp loo xam ne day passé problème sëy nañ defexee muy am jàmm ñuy waxtaan ñu ni neen xaasatan xale yi nga xam ne ñooy door a dugg si mbiri say ees suñ maas ak keneen ku munta doon na kilifa yi jóg di waxtaan ak ñoom di leen di digal di leen di xelal ndaxte sëy xale kat ay mag ñoo say jàpp buñ toogee seetaan leen dinañ def naqo si dul loolu kon kon jamm googu non mo wara daw si biir sey xalé yi kon niñ fexé ilu fay di si dox di si waxtaan di séti di nemmeeku ngir lan jamm gi gëna mo yok ndax té digënté kat bala mo neex jamm am sey bi bu neexuté jàmmaa fa jeex every day problème ngey ngeen ngaayo ma sama baat si lay mujj kon nak ba ñi ag si may ma sama baat kon nañ fexé goor gi ak jigen gi yëpp ñu ju bo bu baax ba paré jamm jaar seen biir jamm fu nekk rek nga gis ni ñëpp ay borom kër gi dafa yakamti wacc dem gis njabootam gis soxna ngir lan jamu gu am ci biir kër gi da koy bañ jëwër da koy namu lool fu mu kol ba baa ngay dadi fo toll kenge aksi naka trafic bi ñoom mi neen yéen a gën a xam na koy gars ko waxee kenn ku nekk di kool di kii ñuy lijjanti gis nga yooyu noonu waaye su nekkee nag problème nag mu sa kër ga doo receive call duñ la may ndox nga naan boo rombee sa boo tegee sa daal la ñu la yow daal duñ la lijjanti yow xanaa yaa naa yaa dem lijjanti si bopp daa xanaa nga am mbindaan te mbindaan mu sa xëy na sañu génn wàll ko kër gi kon nañ fexee jàmm bi muy daw place bu ne dëkk beeg place yi jàngukaay yi place yi liggéeykaay yi ak fu mu mënta doon mm-hmm. nañ fexe jiital jàmm lu dul jàmm jàmmoo ko gën kon na leen Ah, jërëjëf ah, yow Oustaz si ah, waxtaan bu am solo boobu la jaama mu nekk loo xam ne dafa am solo torop na leen try ñu develop the culture of jaama in our hearts and in the human society mm-hmm. jaama dañ ko soxla fu nekk si si liggéeyukaay yi si si néegu sëy si kër gi suñu diggante suñu mbokkay suñu xarit yi ay àndandoori jaama dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop torop kon leen try ñu develop jàmm into our system ah, di tàggatoo di la wax ne jërëjëf si seen time bi ngeen di jël di follow Eco TV International especially the programme ah, waxtaani islam ah, di la wax ne continuer di len follow rek programme bi saa yu nekk ñu ngi ñëw fii di leen indi leen important topics di discuss ak yéen te insha allah more topics are we coming and di Ramadan is approaching dina waxtaane Ramadan bi insha allahu rabbi di wax suma caméraman bi Ousmane Bay jërëjëf si sa time bi suma éditeurs yi Aïcha ak sista Janet ma leen di wax ne jërëjëf abu baax baax ak oncle sirfo Dabo oncle Ousmane Tunkara yéen yëpp di leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla defal leen jaama yàlla sutura leen yàlla jàppale leen si seen liggéey yàlla aar leen abu baax a baax a baax oustaz tamit di koy gërëm di ko sant di ko wax jërëjëf saa yu nekk yéen la yàlla jàppale si seen liggéey bi programme bi comme dañ leen ko daan waxee rek programme bi mu ngi am soxla sponsor ñu leen di try ñu leen di ñaan ngeen try ngeen fa dimbalee ñu def seen loxo si programme bi ngeen jàppale ñu su sponsor anyone interested to sponsor programme ngeen call the number below on ñu leen di ñaan bu baax a baax ngeen try ngeen sponsor programme bi sponsors will help us to grow programme bi dafa need sponsor torop programme bi dafa important te sponsor moo ñu wara moñu at dimbale ñu gëna mëna mun a taxaw fu dëgër kon jappalé la ñu ngeen sponsor programme bi ma bay oustaz mu tagato ak askan bi ok jërëjëf mariam bu baaxa baax si wax yu kaddu yu nun yu rafété yu sell yu nun daté suñ togaay bi lu dut wuñ fi dara lu dut defar rek ak waxtaan ak bari wax moñu fi taxato fi waye ñu ñëwa sax ko xana si jàng rek lañ tollu ndaxte si góor góorgóorlu foofu lañ toll ñu war a tabax islaam defar ba mu baax ndaxte suñu borom bee ñu ko sant di leen di waxtaan yéen leen si leen biir te waxtaan bu nga xam ne waxtaan wi suñu borom na rek mm-hmm. yàlla daf see def xéewal daf see def sutura mu def si barke kon su ko defee ñu gërëm Mariama bu baax a baax a baax moom nga xam ne moom mooy asi topp gi ñuy waxtaan su ko defee yàlla gën koo defal mu nekk nit ku fasaa nit ku oyof nit ku baax ci lu mu nekk di yëngatu yàlla si yàlla def xewal ak barke ak képp koo xam ne yaa ñuy déglu yàlla na defal sutura yàlla defal la xéewal yàlla barkeel la sa liggéey boo mënta doon aar ñu sàmm ñu làq ñu fa yàq àggut waaw ñu nga xam ne ay jafe-jafe topp na la yàlla na yàlla yombalal ak mboolem ku nga xam ne bugg naa tukki ak nu mu mënta mel <laughs> insha allahu taala rabbi di tàggatoo yéen bu baax a baax a baax <laughs> Until uh, next week, uh, another episode of Wahtani Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.